mbokk yi xarit yu seen njëriñ TV bisimilah ñu dëkk ak yéen ci li gën a fës ci yëglekaayu tey jile rapport ba nga xam ni moo jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama te nga xam ni Human Rights Watch di ONG internationale boobu lay nga xam ni moom moo ko def tey ji quotidien yëpp moom la ñuy xëyee Sud Quotidien ma nga ñuy présenté cas Sénégal ah daf leen nànk de ndaxte nag bu Sénégal dafa mel ni lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama dañ ko fay salfaañe lool ba tax na ONG international bi lay mi ngi accablé maanaam mi ngay axtu réew bu Sénégal ay

ak ak yelleefu doomu aadama moom maître Aïssata Tall Sall ñu fekk ko tey ji nag ci bi di Les Échos ñu gis ne moom avocat bi mais nga fay défendre nag régime bu président yoon ci réew bu Sénégal ma ngay rafetlu euh, foofu le ci Genève avancé yi nga xam ni réew bu Sénégal def na ko euh, ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama Aïssata Tall Sall euh, ma ngay dalal xelu nag ñi nga xam ni ñoom ñooy waa conseil de sécurité ñoom ñooy waa conseil bi walu ak yelleefu doom aadama fofu la ca mbootaayu xeet bi alerte quotidien ñu koy xamal suñu confrères yi 24 heures chrono ñom lenn lañu gis gis nañu né réew bu Sénégal fi nak la daj depp gi daje ndax ci lepp luy xoxatal doom aadama fi lay xewé répression bi manam xoxatal geeg dóor geeg menace yi daal gis nañu né lepp nga door ci atum 2021 jamono ja nga xamni procédure judiciaire yi ñoo ngi ko doon teg ci ki di Ousmane Sonko di opposant politique ci réew mi quotidien foofulee nak nga ñuy wax itam lu jëm ci passage bu Sénégal foofulee ci conseil des droits de l'homme bu ONU foofulee nga ñuy wax ni euh, kii di garde des sceaux du maître Aïssata Tall Sall doon na communauté internationale bi Diego yi nga xamni bu Sénégal def nako lu jëm ci wàllu naka la def ba promouvoir li di protection des droits de l'homme té lépp nak mi ngi amé euh, ci juróomi at yi ci réew bu Sénégal euh, ci wàllu LGBT yi maanaam wàllum góor jigéen ñi di borom ñaari tour yi suñu confrère réew mi ña nga ñuy wax ni réew bi Sénégal de ba te àndu ca ba te mosu ca Human Rights Watch nag gis nañu ni artuwaat réew bu Sénégal ah, ci nii ñuy xoqotale askan wi ci bu ay élection di waaj a ñëw ci Express News lañ ñu ko xamle organisation bi ma ngay wax autorité sénégalaise yi ne rek dañuy faral nag di xoqatal bu baax a baax ku jég ku jég politique gi di xoqatal itam média yi te tax bàyyi wuñu société civile bi ONG bi nag ma ngay woo président Macky Sall ci digge yi nga xam ne defoon na ko manaam dina organiser ay élections yu libre et transparente wante loole dafa mel ni rek yëf yi dafa amul ndaxte tey ji ñoom la gis ci seen rapport bi lee moo di ay doomu aadama yu ñuy xoqatal ñenn ñi ñu faral di leen tëj ci biir kaso yi te sax ONG bi loole la si nag ñeena tey ji mi ngi boo nguur gi ak ña mu àndal ñu génne ñi nga xam ne ñu nekk ci kaso bi te ñu jàpp ni dañ leen fa teg te jaarul ci yoon ñu tuddee leen maanaam des détenus politiques te sax ñoom dem nañu bay wax ni ci diirub ñetti at nag gis nañu ne kaso yi dafa fees dell ñu fa nekk ay opposants politiques kotto fa ne tey di Human Rights Watch ma ngay woote ngir nag ñu libéré képp kuy détenu politique te itam nguur gi nag na fexe ba may nit ñi ñu mën a ak keneen ki nga xam ne itam bëgg naa féex te bokk ci bile élection présidentielle moo di moom Karim may Meïssa Wade bàyyiwul de déedéet ba tey bàyyiwul donte na tey ji écarté nañ ko ci bile présidentielle nee nag dafay saisir euh, cour de justice de la CEDEAO Walf Quotidien moo nga Kamal, koy xamal wante suñu natango yi la ñu gis moo di ne recours bi nga xam Karim da ko bëgg a def loolee daal ay de rek la ndaxte dara naru caa sotti moom de fils euh, ñu ko le quotidien euh, wante nag ci quotidien le di le peuple quotidien mon bible ba lañ fa maître Abdoulaye Wade foofu ma nga exiger ngir nag ñu conseil constitutionnel ndax jàpp na ni ña fa nekk daal mérite wuñu place of bu ñu sukkandikoo ci suñu natango ma ngay wax ni mom pap di soppi eh, dépêché na sax manam dal yebal na ab délégation foofu le ci kër Serigne Mountakha Mbacké ngir nag mu addu ci ba tay ci bile eh, quotidien ña nga ñuy xamal ni farbangom ak kii Abdoulatif koulibaly ñom tay ji dañ leen di tuumaal ne dal am na dak lenn lu ñu séq ak ñi nekk ci bir conseil constitutionnel eh, ta itam ba tay ci bile xët ñu ngi xamal ni parti démocratique sénégalais mo ngi wo ay militangam ngir nak ñu xaar le dernier laata ñuy préparer li di résistance. Euh, critique quotidien ñoom ñi ngi ñuy xamal na ñoom ñii di euh, coalition Karim 24 ñoom ñi ngi ci résistance ba noppi dem ñi ngi woon ci ab conférence de presse foofu lañ fa wax nag leer na nañ nee nañu tey jii bëgg nañ daal def lépp ci ay recours ngir nag ñu joxaat euh, Karim Meïssa Wade ay axam ak ay fam ya nga xam ne sax ay atang nii ñu ngi koy salfaañee wante nag loolee taxul rek ñu toog ndaxte nag bu fekkee loolee antuwul jàpp leen du mës am ci bu Sénégal express news ñoom ñoo ñu ko xamal wala sax journal bi di l'indépendant ñoom parti démocratique sénégalais nee nañu bu seen leader bi di Karim Meïssa Wade bokkul guérilla dëgg ma fi am ndaxte élection du fi am ndaxte tey jii ñoom nee nañu la leen dal ab coup d'état pré-électoral dëgg la ñu koy woowee te sax conseil constitutionnel moo nekk di ginnaaw lii lépp te Vox Populi nag moom ki fi nekkoon président groupe parlementaire liberté et démocratie de Cheikh Mbacké Bara Dolly moom nag ma ngay soññ Karim wala ma nga koy artu di

manam ci wàllu désertion ñu gis ni suñu confrères yi ñom gis nañu né ñaari atangi ni da bu ñu parti démocratique sénégalais du bokku ci élection présidentielle te loolee nag lu rëy la ci réew mi ak ci taarixu politique bu Sénégal wanté nañu gis ni ñàkk bokku ba Karim Meïssa Wade boobu lay mëna nek nekk ab chance ci kédi di Idrissa Seck bu ñu ci enquête quotidien ñom ñang ñey wax ni euh, candidat bu réew mi mëna bénéficier euh, ci report de voix manam dal ñi nga xamné bëggon bëggoon nañ wooteel kii Karim Meïssa Wade mën dem nak woote wooteel euh, kii di euh, Idrissa ndax te moom kott nag moo fi des euh, ci ko ñu mën a tuddee ab libéral ba nga xam jege lool moom président Abdoulaye Wade quotidien bu Madiambal Diagne bi lii ma nga ñuy wax ci lu jëm ci choix ba nga xam ni Ousmane Sonko war na ko amal nag ci bile présidentiel gis na ni daal coono la nar a am moom Ousmane Sonko ci diggante kii di Bassirou Diomaye Faye Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye maanaam la guerre de trois la ko tuddee wante ci yor dafa mel ni nag foofu na choix bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko mel ni leer na parce que qui di basir de Faye suñu natangoy mom lañu la ñu gis ne porte étendard drapeau bi manam mom dal mom la denk projet pastif bi tam mom cote moko meuna dox mais attention de dafa melni ni le point ak tu bëgg wax ndax à suñu confrères yi ñanga ñu yëgal ni jam Faye bu fekke nak mom lañu président de la république ah moytu leen de du gouverner parce que ki di Amadou Mame Diop di président bu assemblée bo moy tuul mom mo a gouverner liko waral modi mom basir Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci kaso kaso bi te lépp lu mëna ra def ngir battre campagne wala sax ngir mu génn fa mu ànd ceeg autorisation bu justice wanté man may lacc rek de mbaadu suñu confrères yi dañu faté ni président dafa am lu ñu tuddee immunité exceptionnelle ñu di xëy la le kay ak walum sport Sénégal Guinée ñu koy xaar tey ji euh, ci talata ji gënaaw bu 17h jotee ci star Quotidien la koy doré euh, foofu le nag gis nañu objectif bi moy ndam rek L'As Quotidien itam ñëwaat di ñu wax ni suñu gaynde yi euh, tey ji ñëw nañ ngir def le carton plein Le Soleil national ci walu wowlee batay tey ah, mi ngi wax itam lu dem ci enjeu yi nga am yi nga xamni mu am ci bile match ñom ñi nga ñuy wax ni match bi ay enjeu yu copito la am ndaxte nak dañoo war a gagné ngir mëna tok fofu la ci Yamoussoukro gagner itam ngir mëna garder la première place te sax xam leen ni match Sénégal guiné du match xarito de déedéet la tribune sport moko xamlé xamle na bile match gis nañu né dem journaliste yu guinéen yi ak yu sénégalais doron nañ ko ba nopi te yefi metti won na ci sen digënté lool ak lu ci mëna am ñun ndam rek lañu União, Unidade Nacional